mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam da ngaa tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy teg awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mun nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum jabet wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyer ba mu set wecc kon nag mu ngi noonu képp ku bëgg ci ngóor a kàttan bii nga xamante xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal. woote leen gaaw ci 77 169 13 13 77 169 13 13. kon nag nguur a kàttan mooy buuru produit kàttan yi.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 wàññil wax ji man xàmmeetuma la de nabu nabu yaa ngi commencé jeex ñuul est-ce que xam ngeen ne góor day dépérir jigéen nabu daas yaa ngi dépérir commencé dépérir ñàkkoo dara dangaa jongoma kaar macha allah rafet nabu bàyyil wax ji bàyyi nga sa jëkkër ji bàyyi ko mu dem yow xoola fukki sal ci sa liggéey ak sa njaboot nga liggéey yow ko dàqul ne naa la réew mi ñu nekk koo fi dàqul dàqu la rafet nga kaar macha mais nabu bu bëri nga wax li ngay wax xaw xam naa nag xam naa nag wax ji bëri ji ngay wax moom teyoo ko moom teyeef moom mënut a nekk loolu moom nga tey ko toog di wax wax ju bari ji moom ah non non non non loolu loolu mënut nekk déedéet nabu man dama laa bëgg nga nekk sama xarit waaye fi mu nekk nii jamono ji ñuy waxee nii xàmmeetuma la parce que danga soppeeku changer dépérir ñuul yaa ngi commencé di maigrir nabu nekkal nit gis nga góor ñi munoo wax a wax a wax a wax ba jikko yu ñu am ñu changé ko yow kay yaay nekk ak ñoom munoo nekk ak ñoom nga bàyyi leen dem sa yoon te xoola boo leen bàyyee sax bu leen jox importance parce que bàyyi leen ba pare di wax ci ñoom day mel ni yow góor gi nga nekkaloon doyaloo ci moom mu bàyyi la na bu bàyyi sa jëkkër ji yow jongo ma nga kaar macha allah te mun ngaa am jëkkër ju ko dàq ku la épaulé ku am charisme ak tendresse mun nga koo am mais wax ju bëri ji ngay wàññi na bu jigéen ñu bëri ñu ngi bëggoon nekk sa place parce que xam nga lu tax danga jongo ma ba pare jàng di lakk anglais di lakk français dégg olof intelligent teg ci macha allah mais danga bëri wax bàyyil wax ju bëri ji rek xoola nga am classe gi nga amoon yow danga amoon classe di def sociale am personnalité ak dignité mais fi mu nekk nii yow kenn xàmmeetu la parce que da ngay njabatu rek yaa ngi ci internet bi di wax rek xoola joxeel sa ay conseil yu am jom nga jël sa jëkkër ji teg ko nale gis nga sa doom ji nga yor day màgg ëllëg te li ngay wax ci internet bi yëpp bu subaa da koy déglu yaral sa doom jox ko éducation de base woon baayam ne que noo ko yar waaye mun naa ko yar da ngay gisaat góor gu baax ku toppaat sa ginnaaw man sax yow yaaxeeti mu laanaa man dama xamul looy yooyu yow lan ngay yàkkamti bi sëy looy yàkkamti ci sa ci ab sey góor ñi nga xam ne ñoom ñëpp a yem six say neuf koo ci dipar ñi mu nekk neuf ba nga bëgg yow boo tasee rek daal di sayaat génnaat yaa ngay waxaat ah mais bu yàggee ñu ne yow yaa yaa bon nag soxor ah bàyyil wax ju bëri ji nabu nabu jongo ma nga jekk nga macha allah mun nga sañse jàng nga yaa ngi làkk anglais li gën a jafe ci àddina xoola nga jàng di lakk anglais ak français ba pare intelligente loolu moo jafe ci àddina te yow loolu la la yàlla may li la yàlla may danga koy xam nga exploité ko pas ay wax yu bëri yow dama laa bëgg sama xarit nga dama laa bëgg man maa la bëggal sama bopp yow bu la neexee sax bu ma bëgg mais man maa la bëggal sama bopp estimé la estimé la mais jamono ji may wax ak yow nii dama la jéppi ndax sa bëri wax bàyyil wax ju bari ji wax ju bëri xoola day wàññi personnalité nit njabatoo kab kebetu gu bari day wàccee sa personnalité te day wàññi nit ki nga doonoon e eh, ala kama sala naaxira atoy sa sabali bref pour yéen ñi ngeen xam ne nag <laughs> sénégalais ñoo naafeq sénégalais gën a naafeq ci àddina yow da ngay toog jàpp sab nawle naan waaw moom kay nu mu ñemee sëriñ moom kay day dem ci sëriñ kii sëriñ lëkk la gëm ah yéen ñëpp a da ngeen di duul da ngeen di dem ci sëriñ ku dul dem ci sëriñ te dëkk ci Sénégal njaay gi amul ku nekk am nga sa bu xaaba bu rëy teg ko ca côté ba saa yoo jaaxlee moom ngay woo mu defal la say sangat nga sangu def say sarax def say ñaan may leen nit ñi jàmm ñëppay dem ci sëriñ lu tax ngeen bëgg a toog di jëw nit mi naan ay kii day dem ci sëriñ ak kee day dem si si sëriñ ñoo tey nag di dem ci sëriñ ñii dem ci sëriñ yi gis nga ñiy dem ci sëriñ yi nag ñoo yee di dem ci sëriñ yi ndax afrig gii ñu nekk dang fii nekk di fi dund ñu lay lekk di la ñormet ndànk te doo dee maa xam ngeen nekku ci yeewu te demoo ci sëriñ uut ñaan ak càngat waxuñu la nga dem yóbbu turu jàmbur di def lu bon uutal say ñaan yu baax wut say sangat di seetlu di xool sa yaram di xool say sarax boo ko deful ñu rey la nga dee ñu suuli la ba pare ñëw di lekk seen ceebu jën di naan seen ataaye toog di waxtaan nag ku ci nekk yaa nga gis nga kanaan la da nga bëgg sëriñ da ngay dem ci sëriñ mu ngaat bu xaabaam sëriñ mu bu xaabaam bu rëy teg ko ca côté ba saayu ko soxla woo ko téléphone dem ca moom ci pet mu ñaanal ko jox ko ay saraxam mu def ay saraxam sangu ay sangoom yow ma mu toog naan la dangay dem ci sëriñ yaa tey demal ci sëriñ ba mu neex ndax nag boo demul ci sëriñ xoola ñu sëriñ tu la nga dee dee Afrique lañ nekk fii c'est la réalité Afrique dem leen ci sëriñ ñaan lu leen seetlu leen def leen lu leen sax te ku toog naan la du dem ci sëriñ mu ngay takk di naan di seetlu dem leen ci sëriñ ba mu neex leen aar seen bopp boo aarul sa bopp ca armeel ya ngay dem ñu gas kàmb ba mu xóot suul la fa maa wax lii bàyyi leen nit ñi tamit yow da ngay dem ci sëriñ nala la concerné kee day dem ci sëriñ na ko concerné yow dundal sa dund rek ku nekk ay xoola yaa ngeeg sa bëri góob day teg ko ne jël ko pap jàmbur di ko wax may leen nit ñi jàmm nag Sénégal nag bëri ngeen wax nag bëri ngeen wax mun ngeen a njabatu mun a kebetu mun a wax te yow la ngay wax dara leeru la ca yéen ñay dem ci sëriñ xoola ku toog ne la da ngay dem ci sëriñ nee ko maa tey ba tayaatoo maay dem sangu takka naan jàkkaarloog askan wi nag boo ko deful xoola askan wi jàkkaarloog yow gas kàmb ba mu xóot suul la ca Sénégal dañoo cappable coupable te dañu lay rey ndegam dañu lay rey te deewagoo massamaak boo deewee te nee naa la fii boo fi deewee midi une heure lañ lay suuli ñëw toog di lekk seen ceebu jën di waxtaan di xàqataay yow nga perte may leen nit ñi jàmm lan la te nag góor ñi téye leen seen jabar yi téye leen seen jabar yi Nabou Dash mi boo ko xoolee te téeméeri moroomam a ngi fii ci dëkk bi di fi dund dañoo amee dépression lu leen ko teg seen jëkkër ya non seulement yow sa dara matul ngay yootu ngay yuut muy të ngay yootu ay gamb defaloo sa jabar dara waaye nag baax na si yéen ndax jigéen da ngay fekke góor dugg ci moom doo xool sa peeru daal bala bala jot góor jigéen da ngay gis na góor ni muy tànnee jëkkëram jabaram ndoonu la jigéen war a tànnee jëkkëram góor ñi balaa ñuy takk jabar dañ koy saytu xool ko xoolaat ko lu tax yow jigéen bi balaa ngay dugg ci góor doo ko xool xoolaat ko looy lan moo ko fi jar ah boo toogee di liggéey sab liggéey jàpp sa njaamur où est problème ah ngay dugg ci góor goo xamante ne yow boo ci duggee dalay leer na yow ki ngay dugg nii boo ci duggee da nga ciy génnaat ndax mu nga yor ñaari jabar yoru leen yow nga bëgg a ñëw dugg ci moom boo duggee ci moom da nga ciy génnaat yow yow ya anaami conscience xam nga ne que yow kii ngay dugg nii munu la yor nga bëgg a góor nga paaral woo paaral gis xaalisam bi teg ci say bët dem dugg ca moom lu la ca fekk nag yaa ko def sa bopp dee leen ànd ak ki ngeen war a àndal bu ko defee coow du am bal du jug dara du jug ki lay teree dem ci sëriñ nag xoola mu ngay dem ci sëriñ di sangatu di ñaanlu di takk di def lépp dem leen ci sëriñ ba mu neex leen aar seen bopp ndax dëkk bii ñu nekk ku fi aarul sa bopp ñu rey laaj suuli la ca armeel ya ñëw toog di lekk seen ceebu jën di reetaan gis nga nag sama vidéo xoola bere fag ki mu laa naa du waru ko woon a am ah doy na waar